ETDR Events vous présente le 14 janvier, fils de Bala Lacrosse, drapeau Ousmane Sakaljen, maire de Sakal, Réunion Tchatouyov, drapeau Ahmadou Bambassar, directeur général de l'artisanat. Deux grandes affiches, une même journée, ETDR Events, le 14 janvier, sponsor officiel, établissement Toubadar Rahmar, Junou Rola, Toubadar Salam Karo, Tampico, Huile Global Textile, Kir Arab Business.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 da ngaa yeb say mbokk waaw muy tey combat bu gaaw pare nañ combat bu yéex pare nañ waaw buggee ñu ñëw salaamaaleykum daje bëri ko mu jeex su buggee ñu waaw bëre jëmale suba incha allah ñu ñaan yàlla nag may ñu ndam. Diène Kairé ak yàgg naa bëri bu mag. mais bis bi digganteem ak Zarko adversaire bi wute na ak yeneen adversaire yi parce que boo xoolee Zarko dañuy gis ni mu Thiel kay moo ëpp tamit aussi maanaam côté boobu est ce que préparé ko carrément ngay bëri nit mu ëpp la ba pare suuf ëpp la relance. mës nga bëri mës nga bu mel nii Zarko. dimanche mën naa ne yàggatul taxaw nañ man ak moom <laughs> xam naa da ngeen gis waaw liggéey nañ ñun mën jaaxaluñu muy muy loolu amul solo li am solo li nekk ñun.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 da nga jël da nga jëloo poids naa ne man du ma sax bàyyi xel yàlla xam na ko damay ñëw gars yi sax ma naan semaine bi yokku nga di wàññi nga yooyu man li ma war def si entraînement rek moom laay def ànd ak suñu coach ku mel ni paa bi sama baap maa ngi koy baax a baax xam nga sonn ay ñoom maxu grand père xam nga dirigeant ay ñoom père abu ñëpp ay maawo vraiment xam nga ne si di jàpp man ñoom laay déglu coach Babacar ba rek ki nga xamante ni moom mooy Zarko ku ne xam na ne moom athlète la mm-hmm. te ku ne xam na ne ay bërëm yëpp euh, man moom est la waaw li ci neex ngay daje koo xam ne day ñëw bëre athlète gaaw def lépp boobaa lu bari sax loo xam ne waaw war war naa ko mën a génnee dina génn incha allah li may war ak li muy waxee na ko dëggal mais est-ce tu ndoxtu bëri yi benn non ndoxtu bëri yi mënul lan moo tax du lu benn waaw loolu loolu loolu mënu ma ci sori mm-hmm. mais incha allah bu dimanche dina ci gën a yaatu non ku ne xam na ne mm-hmm. Diène rek dafa am ay ndox tu bëri yu doy waar yu nekk ci moom champion la mën naa bëri bu yàgg naa bëri bis bu mag mais Zarko tamit am na ay moom non ma ne li ma koy wax chaque kaa xam te xamuma moom parce que ni ma déggee ni mu waxee moom xamuma te incha allah dimanche dina waaw dina xam danga yaakaar daf la xeeb la lay xam moom moom day nappaate day sim waaw dañoo yàgg man ak moom nee naa la ba ñu daje salle olympique club ci maa ngi koy nuyoo passage ak ñoom Lamine ak olympique yëpp boobu yàgg na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 man daraay xiiru mbër dérangé wu ma li ma dérangé arbitre sifflé waaw ku mën sa morom duma non mom bo pa bi lay waxal pa bi pa bi lo xaw mu ne père bu fekke da nga jël Zarko te ñeme woo xam mom rek mom lay neexal.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 ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mak bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ la jox kaya Amé amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevée tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique